Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous des merci de vous abonner, merci également de baisser les commentaires, plaisir, renouvelez gars yi mbokki sénégalais yi fépp foo leen mënti 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk ci kaso yeeg ci kër yi fàttewuñu leen ah, benn yoon ak ah, ñi nekk ci kër yi ak hôpital yi mooy ñi feebar ñu dëddu àdduna également suñu borom xarit leen àjjana fiir daw on avance ensemble sur eSport TV actualité gars yi dañuy waxtaanee ki nga xam ne nag moom mooy euh, kii di Samba Diallo Samba Diallo calvert gi mu dund foofu noonu ci Ukraine loolu lay wax lan la ko gisee nan ak aujourd'hui lan venir avenir Samba Diallo donc l'on nañ ci waxtaan mais aussi Pape Diouf bi nga xam supporter supporters Marseille ñoo ñoo ko bëgg rendre ben hommage bu phénoménal rendre ko également Sénégal dinañ leen ci jox ay détails ci biir vidéo bi en tout cas hommage la bo xam bu buñ ko gars yi concrétiser dina nekk lu exceptionnel VAR bi jeu concours bi soxna yi suba lay tambalé mais limay wax moy góor s'il vous plaît commenter leen mais bu kenn répondre ci question yi parce que boo répondre ci question yi rek dañuy annuler li nga xamné ne moom jeu concours bi parce que bëgguñu góor répondre ku jigen gis ko wat ko benen critère moy soxna yi aussi ñi yàgg abonné doon commande chaque jour loolu day bokk ci critères yi pour tànn kan mooy gagné li jëm nag également ci football bi Seny malheureusement équipe am donc stock City moo leen dóor moo tax ñoom lépp loo xam ne day jëm ci montée ak championship bi ñoom daal gars yi bokkatuñ ci parce que défaite bi ñu am la Seny Dieng nag dafa nekkoon blessure ba léegi mi ngi blessure mais reprendre na nank nank lii nag di wàllu football bi ci jigéen ñi Amraoui mooy ku jigéen ki ngeen gis naar bi moom nag mi ngi créé problème Paris Saint-Germain tey tamit dafa jotewaat ak benn chose euh, ki nga xam ne mooy donc foofu noonu ci Paris Saint-Germain di Baltimore daf ko saaga selon les informations loolu nag jurat coow moo tax Paris Saint-Germain écarté ko ci match demain bu ñu wara jouer contre Lyon Amraoui mi nga xamné ne mom euh, accusé won na fi ay temps ne kat benn seen euh, benn kii bokk euh, benn jigéen Diallo la tuddu moko agressé woon wala mo waxoon ñu agressé ko Lyon nak mom mo door tay cinq buts à deux équipe bi di Montpellier ki di Ekambi bi dugal na ak Dembélé ak également Awar et bi nga xamné ne na sax ak supporter Lyon. yi mauvaise nouvelle aussi pour Cheikh Fabregas waxon naa leen ko mom dafa waroon reprendre gannaaw septembre légui jours won match réserve la waroon jouer tay malheureusement dafa blessé mom daal fi dafa mel saison c'est finalement terminé donc au niveau de la Prime League day match yi ñoo amagum amna na yo yoo xam ngi daw pour l'instant donc Manchester euh, City moom moo dóor ñi nga xam moy Watford 5 buts à 1 donc Norwich dóor euh, Newcastle dóor ko 3 buts à 0 Leicester ak Aston Villa dañu tembo donc ki nga xam mooy donc euh, Ismaël Sarr bu condé ni mom dafa melni day wadi wacc mais aussi Arsenal gars yi Arsenal bi commencé yewu Arsenal bi nga xamné mo moo dóor Chelsea keroog Arsenal tay mo dóoraat ñi nga xam moy Manchester United ñom nak commencé nañ yewu avec les baby boys ñu leen gars bëgg a nak nag ñi nga xam ne mooy les les jeunes de dit « Ateta, ancien joueur aussi ancien adjoint de King nga donc Pep Guardiola but aussi de Cristiano Ronaldo ci match Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui est devenu le quatrième buteur au niveau de Manchester United pour atteindre la barre des 100 buts parce que Wayne Rooney fait fa tout avec également Kid de Ryan Giggs et Paul Scholes qui euh, nga Cristiano Ronaldo c'est phénoménal donc gis en Portugal 115 buts au football Juventus 140 buts Real Madrid 311 buts fi nga Manchester United 100 buts CR7 donc aujourd'hui qui devient une légende qui aussi du classement bi par rapport à nga xam jëm ci quatrième place bi Chelsea fi mu ne nii deux points la rawee ñi nga xam ne mooy Arsenal Tottenham moo nekk cinquième Tottenham mu ngi joué jamono ji Manchester United sixième West Ham septième Wolverhampton huitième donc fi mu ne daf mel ne Manchester moom pare na ci quatrième place bi kii nag ngeen gis ni en ah, deux joueurs Matip moom nee na. match contre Everton match bu important la mais gars yi bu ñu bañ a concentré ci derby bi parce que bu ñu nee derby la d'habitude day indi tension te ñoom dañoo war a football pour gagner match bi Chelsea aussi ah ki nga xam ne donc mooy euh, Gundogan euh, Gundogan bi nga aussi Manchester City nek nec mom gis na aujourd'hui donc Chelsea batay tey euh, mën na bokk ci li nga xam ay grands d'Europe mais aussi ki nga moy Lukaku Lukaku aussi ñu koy wax du côté de l'Inter l'Inter aussi bi nga xam ni mom Lukaku gis nañu dafa bëgg de dellu aussi ah ki nga moy donc De Jong Franky De Jong Xavi def na déclaration gannaaw bi ñaan Frankie De Jong Manchester mo la def priorité Xavi né su c'est semence rek Frenkie De Jong fi a ay ati parce que mom il doit écrire son histoire du côté du FC Barcelone donc mom néna De Jong pas question Barcelone ko bàyyi mu dem Ansu Fati aussi gay Supporter supporteru Barcelone yi xam la bonne nouvelle nee na ki nga Ansu Fati match semaine prochaine contre Mallorca au niveau de de nous de Camp Nou Mom dina jouer Inch'Allah, c'est les reprendre donc officiellement match avec le FC Barcelone kii ni le Liga Actu moo xamal donc wa Real Madrid nak enclenché nañ officiellement première démarche premier contact yi pour ki nga xam foofu noonu du côté du Real de Madrid benen joueur français bo xamné aussi mi ngi ci euh, Espagne di Jules Koundé mom bi nga xamné ne 3 saisons la def ci FC Séville saison yu exemplaire mom nak fimné ni dafa bëgg a jógee ñu ngi koy tuddu du côté de Chelsea gannaaw ba nga xamné ne Rudiger dafa jógee parce que mom dafa bëgg jouer li nga xamné moy Ligue des champions ak aussi gagner ay yenen trophées gars yi je vous l'avais dit Pape Diouf nek légende ci Marseille Pape Diouf aussi nek légende du Sénégal pour man li may njëkk retenir ci Pape Diouf moy né mom ba euh, les derniers instants de sa vie il a passé au Sénégal parce que dafa bëgg Sénégal patriote donc même bu en France Moustapha est Sénégal Il représente le Sénégal et aujourd'hui c'est une fierté pour nous Pape Diouf qui n'est plus hein donc mais c'est xel du de a parce que les mu qui ci footballu Sénégal qui ci footballu Marseille ak aussi relation bi mu maintenir ak tey Sénégal c'est le premier Sénégalais bu nekk président de club en Europe Pape Diouf n'a waa Marseille Il gis maillot bi le supporter Marseille Il dañoo un ay concours pour gagner ay maillot maillot bi nag la proposer Marseille pour euh, supporter supporter Marseille sax war nañ daje ak nga xam moy Pablo Longoria ak yenn joueurs yi pour proposer leen design yi nga xam ne moom lañ bëgg de woon Marseille sol ko bokk na ci maillot bi aussi ki di Samba Diallo Samba Diallo gay wax nañ ko aujourd'hui bokk na ci futur bu équipe nationale du Sénégal nek na joueur bo xamné je ko pas wax gars yi duma di ko la ah, daru dem jouer ak petite catégorie ñu jaay ko fa nga xamné euh, donc euh, de Kiev donc mu nekk fofu ci Ukraine mom nak ki nga xamné moy Vasilev aussi hein donc cadre responsable fofu nga xamné dirigeant ci ci Monaco mom mom agence bi nga xamné mom moy yor li nga euh, contrat bu Samba Samba nak parce que musta guerre comme Sénégalais yu dañ koy dégg rek mais situation metti na et ba mu amee il avait même des soucis xam woon nan lay def ndax boobu day egsi moom wala du fa egsi mu jëntal gi mu daal di dem France jël train bi ne ba mu demee train bi également gis na fi image graw ba mu jëlee France jugee train bi dem dem France jëlee train bi dem France plutôt ah, donc nee na ba mu yegsee France automatiquement dafa dellu si Sénégal parce que waa juróom ñu ngi ko doon euh, inquiété aussi si moom mais Samba Diallo actuellement mi ngi waat France di entraîner Monaco tout seul moom nag perspective am nee na bu mënee dellu Kiev day dellu Kiev mais ki xam ne nag mooy agent am nee na euh, c'est il est pessimiste encore ah, que du na fa dellu moo tax Samba Diallo am na club yu bëri nag agent am nee na ñu ngi suivre Samba Diallo et donc aujourd'hui Samba Diallo est un joueur pour xamné de relancer votre carrière moo tax ah ñu ngi koy tudd si club yu bëri donc euh, muy France ak feneen ak feneen donc moom boo ma tudd dafay jugee fa nga xam ne mooy donc ca Ukraine parce que fi mu ne nii la situation elle est un peu délicate mais Samba Diallo aujourd'hui encore ce qu'il faut savoir mooy que ne li nga xam ne FIFA moom la teg gannaaw bi nga xam ne attaque yi am na foofu noonu ca Ukraine mooy que ne fi mu ne nii joueurs yu nekk ci championnat russe bi championnat Ukraine bi am nañ droit ba fii mois de juin ñu changer club gratuitement résilier seen contrat daloon ju leen ci fekk donc Samba Diallo aujourd'hui également bokk na ci espoir yoo xam ne Sénégal ci moom la compter en tout cas les gars c'était les informations que je voulais vous donner wéy leen di like wéy leen di abonner toujours un plaisir de vous servir ja ngeen jëf